tey nag dañuy ñëw fii ci suñu kër. Hmm. Euh, son excellence le président Macky Sall yónni ñu fi xam cër bi kër gi am ci réew mi mu yónni ñu fi ñu ànd fekk délégation takku ànd fekk l'adjoint au préfet le sous-préfet de l'arrondissement de Koki ak commandant zone bi ak ñoom Sele Ndiaye ak responsable politique gu département Louga bi yëpp tey nag ñëw jëmmal si président teewal ko ci bis bu màgg bi nga xam ne mooy bisu suñu maam di maam Matar Ndoumbe Diop hmm. nga xam ne ñëpp xam nañ ko dégg nañ ko ci Sénégal bu baax a baax a baax ki jaloorem président nag xam ne kër gi këru sàkku ñaan la këru diine la këru sàkku ñaan la mu xam ne bis mënta gën a màgg bis bi hmm. mu ne ñu ñëwal ko tey ci suñu papa tàllal ko loxo sàkkul ko ñaan ci réew mi yàlla def jàmm ci réew mi jàmm ju sax ba faaw yàlla suñu borom it musal réew mi ci jëye yi nga xam ne ñu ngi koy dégg ay bitim réew suñu borom jàpp ci ba nga xam ne mu bañ a agsi ci réew mi di ko ñaanal également ñëw sàkku ñaanal ko yéene ji nga xam ne am na ko ci réew mi Euh, te commencé ko ci plan programme boobu nga xam ne moom lay wooyee le plan Sénégal émergent hmm. commencé cee def jéego yu rëy rëy rëy ah mu ñëw sàpp fi ñaan ci sëriñ bi mu ñaanal ko suñ borom may ko kattan ak wér-gu-yaram bu nga ko àggale mais également suñ borom may ko deuxième mandat boo xam ne hmm. dina mën a àggale yéene ji nga xam ne am na ko Sénégal te yaakaar na ko fii trop sëriñ bi te xam na ne boo ko ñaanee suñ borom dina ko def la ca des nag mooy ñun ci kër gi la ñu bokk hmm. donc dañu war a taxaw taxawaayu doom jàpp ci dëkk bi. Mhm. yaakaar naa ne sànq laa ci wax ak euh, ñoom Sele. Mhm. te incha allahu rabbi am na ay engagement yoo xam ne jëloon naa ko ak sëriñ bi. Mhm. mu jëm ci fondation bi kër bi ñuy war defar ñu war cee taxaw jàpp ci. ak euh, goudron bi nga xam ne war nañ koo def muy trois kilomètres. donc incha allahu rabbi danañ ci jàpp ba nga xam ne. li ñu war ci kër gi ñu def parce que lu ñu fi def suñu bopp lañ ko defal. Mm-hmm. kon daal vraiment xam naa ne kàddu yi du gudd. Mm-hmm. Ah, dañ leen di sant rek eh, di leen gërëm ci ndaje bi. Mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul alhamdulillah. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alladi lam yattaxiz walada lam yakun lahu sharikun fi lmulk wa lam yakun lahu waliyun min zulli di sant yàlla ci bés bi ndax bés bi dafa dëggal ni sunu maam Matar Ndoumbe ndekete borom jamono gi ko sëñ Tuubaa daan woowe moom la ndax moom day la mu waxoon lépp yàlla suturaal nañu am na tey neewoon na alxuraan dana sakk dàkk kokki loolu mu ñaanoon la sëñ Matar Naara nga nee toog di liggéey liggéey bu rafet ci alxuraan ñetti daaraa ngi fi daara Njaga Isa am na daara daara Ngura am am na daara Matar Ndumbe ngi fi daara Matar Naara ngi fi mu amat saxiir kon Maxtaar Naar ñu ngi lay ñaan di la sant di la gërëm ci liggéey bi ngay liggéey alxuraan ci dëkk bi nga koy defe loolu nag sunu maam waxoon na ko wóor nañu léegi ñu maam Mataan Ndumbe borom jamono la alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ba nga xamee ni la sañu maam Mataan Ndumbe waxoon ci jamono yàlla wan nañu ko ñu ngi koy gis fi mu ne nii ndax nee woon na yëngu-yëngu bi li muy bare lépp ku yebbu topp maaram Mbàkke tey jamono jii ñu ne ñetti xalif généraux yëpp surtout maam Matar lañu sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa Mbàkke surtout Matar Ndumbe ñetti yoon sëñ euh, sëñ maam bu sëñ kokki la ndax maamam pend buye ba njaga isaa ko jur xalifa bii tey di xalifa Tiwaawan surtout sëñ kokki la ndax seen maamaat mat ndum seen maamaat farimata sekk ak ndumbe sekk mi waaye jur jigéen bi mataar ndumbe ñoo bokk ndey ak bàyyi kooku ñu santaat ci yàlla neewal na coow leeg barke bi coow li topp na ñooñu topp na ñooñu ñëpp di sutu maaram kon suñu maam waxaat na dëgg foofu nag nañu doon suñu sëtu maam te bañ nax suñu bopp nañu doon suñu sëtu maam te bañ nax suñu bopp te li may wax nii soññ gi mu wax nag famille bii laay soññ famille bii laay soññi ci nañu xoolaat seen bopp nañu xoolaat seen bopp nañu xam seen bopp ku xalaat sa bopp xam sa bopp doo yaakaar kenn doo tagg kenn doo gërëm kenn lu dul yàlla te maa ngi gis yoo xam ne yi man xaw ma ko Cheikh Moustapha Diop mi fi jóge di sunu doom maa ngi koy sant sant ma ko parce que ministre la dama koy sant parce que ministre la naam yàlla na yàlla def mu yàgg doon ministre li ko fi ñaanal yëpp yàlla na am mais li ma koy gërëmee muy doon sëtu sañ kokki wane ko tey ndax li muy doon doon ministre doon sëtu sañ kokki bi bi sëñ ab doomu sëñ baar ñëwee bu sëñ Abdou Aziz baar mu wër ko ni xalifa la dafa jóg dafa jóg chaise am jox ko ko loolu ñu ngi si sant Moustapha Diop sant ñu ko nag ndax ministre la alhamdulilah ba mu doonee ministre di sëtu Matar Ndoumbe ñu ngi ciy bërëg mais sant nañ ko ndax li mu def santaat nañu ko loolu mooy surtout Matar Ndoumbe autorité fi ne itam sant nañ leen mais seen devoir nañu def li ñu def ñoom ñoo ko war def parce que duñ leen fal di leen fay pour ñuy teewee man loolu laa bëggoon ñu xam ko xam leen seen bopp gëm leen seen bopp bàyyi leen tagge yi bàyyi leen tagg leen seen bopp te ni ngeen di seen bopp mooy fexe leen ba doon kenn fexe leen ba doon ci àdduna bi ngeen ne kii ku leen gis xam ne mu may ñu ko ba ñu fekke waat ko déwén te waat ko ñu dikk nag tey di jottali ay kàddu yoo xamee ni mi ngi jóge ci section yi nga xamee ne ñoo jàpp ñoo ngànk liggéey bii waaye nag bala may egg ci loolu damay am délégation boo xam dama koy présenté mooy délégation Daarul yi nga xamee ne bu ñuy wax kokki mën nañ ne Daarul Moxti la tey nag du ma toog ñu di ci délégation yi ba mu jàll ca délégation bi nga xamee ne ñoom toujours mbir mi da nañoo kenn déggu leen mi ngi ànd ak Mbène Fall Diop doomi sëñ Moustapha Mbène moom sëñ Madou Makhtar Diop Daba Diop sox sëñ Basir Diop moom euh, sëñ bu yë ñi nga ànd ak soxna euh, Astudaam Diop moom sëñ Madieng Diop ñi ngi ànd ak Thierno Diop doomi Cheikh Bousso moom Cheikh Ndiarène ñu ngi ànd ak sëti Mor Mariama Diop yëpp ak Mor waa Daarul Manaan ak waa Daarul Moxti ñëpp ñu ngi bàyyi lépp xam ne bis bi ñoom ñoo ko moom dëkk bi seen dëkk bis bee leen ñor dikk ñu ànd ci liggéey bii section Daarul Moxti nag sant nañ leen bu baax a baax ci taxawaay bi nga xamee ne taxaw nañ bis boo xamee ne jóge woon nañ fii ren ci la ñuy koy tàmbaliwaat ba déwén ñu xam ne bis bi dañoo ñor ndax suñu dëkkub naam la fi lañ jógee fi la dellu siwaat Euh, ñuy sant it association section Touba wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ ñoom ñoom it wax dëgg yàlla ñuy gën a soññee xam ne mbir mi ñoo ko bokk ñun ñëpp ak section Kër Ngor gi nga xamee mooy waa Koki section Koki kon euh, section Koki ñoom it ñi ngi leen di sant bu baax a baax ci seenu taxawaay ndax luy njaag mooy njaag ndax dañoo wax ne feccum liir bu neexee day jaa jàpp ca wagg ya ca kon mbir mi fii la sox ko ci kokki gii kon it ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax a baax section Dakar gone yi nga xamee ne ñi ngi nekk Dakar mosuñoo fàtt fi ñu dëkk ay bis bu nekk wala weer wu nekk danañ daje ngir jëmmal bis bii mbokk yi nga xamee ne nag ay euh, waa délé délégation la yu jóge fenn sant nañ leen ba noppi ñooñu moom wax dëgg yàlla ñun la ñuy jàppale kon it ñu xam ne waa section yi seeni liggéey egsi na gis nañu ko nañu gën a takkuwaat ndax kenn ku ci nekk amoo fu dul sa dëkkub maam muy sa dëkkub cosaan te ñun fii la am moom la ñu tiitaroo ku ko jàpp jàppale nga ku ko jàpp li ñun ñu jàpp ko di xaar ku ñu ci jàpp li waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh